école école buissonnière laay kii na bu naka waa Pikine nu ngeen fanaanee démb. très bien. waaw ah, déedéet fanaanu leen très nag <laughs> dindil dindil très bi très bien moom dindu ko ngaa la jarul fas kanam ci suba gi vraiment àdduna amul solo. et puis nabu koor man li ma gën a énervé ci yow kaay ma wax la ko tey. nabu war na xëy suba gi naan. ay non on va parler de l'actualité sportive dinañu wax ci affaire match Chelsea bi yow ban Chelsea. Chelsea ban. ban Chelsea la ñuy waxtaanee lan la ñuy waxtaanee leen ci sport bi lu dul lu dul li xew démb Pikine na ngeen fanaanee laa lay laaj waa Pikine naka ngeen fanaanee sama soppe yooyu maa ngi leen nuyu baax di leen ziar waa nelaw ngeen bu baax ah <laughs> ngaa la bul insister ci baax bi bul insister tuwaar kàll waa démb nag rokkos ngeen ay eh, ko waaye yéen a daanu <laughs> rokkos ngeen nag dëgg yàlla ah tuwaar kàll problème déedéet mais Chelsea bi nga bëgg waxtaanee moo ma déranger. en fait dama leen ne Chelsea bi match ci Chelsea. dina dina am ku fiy taxaw léegi. waaw dorénavant waaw di ñëw di leen waxtaanal di leen di leen jukkil. waaw euh, xët yi nga xam ne daanaka dañoo xëyee ci ci ci sport. waaw di leen di leen jox date yi nga xamante ne mën nañ ko séntu ci wàllum sport di leen ko jukki parce que am na ñoo xamante ne aussi actualité sportive da leen di soxal. waaw waaye balaa ñoo waxtaanee waxi si Chelsea kay wax dëgg yàlla balaa nga def bilan. anga la da ngay def situation actuelle ba pare on parle d'abord de ce qui est de ce qui fait l'actualité te wax dëgg yàlla match Chelsea Chelsea yi yaa ngi dégg nit ñi seetaan nañ ko naam waaye démb ñun dañoo nekkoon ci leneen mooy sa bopp koñ rek arène bu fa ne lu xam nga fa ah waaye nag yéen nag yéen nag Pikine nag nag sa tët tët tët tët oh, oh. ah? awma deux minutes. may ma deux minutes aw ma ko aw ma ko aw ma deux minutes aw ma deux rek léegi yow waa jëlal jëlal jëlal cinq minutes jëlal cinq ma jël cinq minutes waaw waxal man xam na man aw ma problème man yàgg naa la wax ñaar ñii ci ay mbër sama yaram ñemewu leen xawma lu tax muy euh, kan naa la mosoon wax Tapha Tine ak mm-hmm. Bombardier mm-hmm. man bu ma doon bëri wax dëgg yàlla très sincèrement ma leen di conseiller dama naan leen di leen ñun tëb juum daanu jumul daanu. Hmm? nga ne juum. juum daanu juumul daanu. Hmm? like leen te partager yéen ñii ma kii yow nu mu tudd ma ni eh ma kii internet ma ni ngeen hmm. like te partager la billahi foofu ngeen di dem stress lañ leen di yokk de dama leen di wax ñëw leen fii. <laughs> avatar mu ngi ñaaw nag. nabu koko laay laay ma. <laughs> xam nga billaay Sénégal yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. allahumma amiin. Euh, Nabu. oui xam nga réew mi dafa neex Sénégal mooy réew moo xam ne. Mhm. kenn kenn kenn rek mënu fee stressé ci jàmm. lii moom yàlla def na ko waaw man nag dama gis ne yéen da ngeen xaw a naqari deret daal mën lool laa seetlu. ñam yéen yéen ñii da ngeen mel ni yow ak ngaa la da ngeen mel ni ku xaw a naqari deret tey. mel ni tey jii daal seen tey daal da ngeen xaw a naqari deret daal. man daal lii jaaxal na ma Tu lii moom boo koy teg dafa mel da ngay gaaruwaale Mbayanta. musique bi dafa xew taay mooy single bu bees bi génn. <laughs> Hmm, tuwaarkaal la. tubaarkàlla ki génnee single bii. Mm. yàlla def na ni tubaarkàlla waa déggal li déggal lii. déggal lii Nabou tey en solidarité vraiment euh, moo tax ma xëy sol bi dama leen a jàppale ay Pikine yéen ñëpp dama leen a bëgg jàppale leen macha allah tubaarkàlla yàlla na yàlla defal leen jàmm ak salaam <laughs> ak xéewal ak sutura tubaarkàlla tubaarkàlla tubaarkàlla yàlla defal leen jàmm ju bëree baree baree baree bëri Nabou kon dinañ waxtaanee match Chelsea bi amul problème ak kan moo doon football démb Chelsea la ak kan nab démb kan ak Chelsea ak kan moo doon football ah wan na wan xam naa ne nag émission bi tey du neex tey moom mën na ma gis ne da ngeen naqari deret daal wax dëgg yàlla nabu tey da nga mel ni ko da ko xaw a énervé ah àdduna amul solo. <laughs> laay lay la laa dinaa ci wax lu ma la wax di ko gëm. Ah. yàlla baax na ah àlla man bàyyi naa am problème am problème. àlla kenn su yéen yéen jël leen seen temps man man man man garaawul de man aw ma benn problème de. waaw émi 17 émi 17 loolu nga seetlu noonu cat la rek cat cat <laughs> cat la rek cat la nee na ma lu tax sa bët bi xonq cat la rek dama doon solidarité démb lii de moo ma jàpp kenn musta gis lii ngaa la baa xamal ngeen ma xam ngeen ne amal ngeen ma ñaari ndékki ah ña waaw waaw ci amal ngeen ma ñaari ndékki bii yoon. Euh, Nabou wax na ba yóbbuwuma Seras ma ndékki ji tey nag wax dëgg yàlla bëgg naa dem ndékki ci nag Seras vraiment tey moom wax dëgg yàlla bëgg naa na bu ñu paree fii rek ñu dem yow yaa ngi mel ni Whitney Houston da moo daan kay. nga xam ne j'ai bien dormi may baax de mami. tuwaar kàlla loolu kay wérante moo ko moom macha allah. mu ngi tolloo amul benn problème ñoom ñoom xamuñu waaye man xam naa ne yow yaa ngi kii yaa ngi baax loolu kay amoo ci benn sikki saak nga ne Chelsea moo doon joué ak kan démb Manchester. Manchester kan moo dóor. match nul. match nul lañ def ñaata ñaata 0-0. 4-4. 4-4. loolu moom du match nañ waxante dëgg waaw <laughs> ah, loolu moom du match moom loolu moom jarul waxtaanee moom 4-4 moom loolu moom du match moom waaw <laughs> ah, bu fekkee da ngay wër équilibre rek ngaa la waaw boobu mooy équilibre parfait sincèrement Manchester ak Chelsea 4 buts ñii ñoo mën a dugal nag te mën a égaliser lii kenn mësu koo gis nag. Ah, mais mais buñ égaliser wul woon du baax. ah waaye nag 4-4 man nabu ñii chômé wuñu ci seen match bi wax dëgg yàlla football nanu kan nga kan moo war a ñëw waxtaan ci ci loolu. affaire football yow lay nekk ah. ah man la ah waaw incha allah amul benn problème waxtaan après ci ci actualité. amul benn amul benn problème yaay yaay waxtaan ci ci comment dirais-je euh, lamb ji. waaw waaw incha allah ci euh, lamb ji sportive incha allah. ah lamb ji kay dama ci wax li ci journaux yi wax rek wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla man man man yéen laa faraloon di yéen faraloon de. lii de kenn mës koo gis waaye yàlla baax na li ci des li ci des kan yàlla barkeel nee na loobu bu vert bu ndaw bi dafa manqué nañ ci wax waa d'accord dinaa ci <laughs> Sénégal pour ñu sérieux dina doy waar de mhm. leen de xam naa ko ci moom wax dëgg yàlla képp koo képp koo xam ne mbër nga wala nga bokk ci staffu mbër ngaa la yal la yàlla defal kàttan ak xolu muñ réew mi toll na foo xam ne nabu bu koor réew mi fu mu toll nii ah man de damay ragal rek ñu lii kenn su koo gis yàlla baax na li ci des rek yàlla na barkeel daal tooñ gratuitement waaw dëgg la de dëgg la de de gratuitement démb na damaa gis benn video bi circulé buy wax ne ëmb naan damay dem ci procureur loolu xam naa ay fola woon de ah anabu ay fola mais loolu kañ la woon démb bi lamb ji. waaw dégg naa ko démb am na benn vidéo bi circulé mu naan damay dem ci pol procureur damay dem ci. pol je pense combat am ak beneen mbër la woon. ah yàgg na. waaw xale yi nañ bàyyi loolu nag xale yi nañ bàyyi vidéo yi ñuy dugal noonu yaa ngi de man bi ma ko dégg damaa tiit ba vidéo yi mu dugal dama ko supprimer man daw naa supprimer yëpp da nga koy xool rek nga xam ni bàyyi naa wax dëgg yàlla ah, ah, Sénégal ah yàlla baax na ah. mais nañ faaw ñu baalu de balaa ñuy dem ah ñu ah ñu baalu suñu borom de ah waa kon yàlla baax na nañ tuub te jéggalu nañ tuub te jéggalu Mm. internautes yi dañoo war a moytu lu mel ni diffamation diffamé ah ku ñu diffamé diffamé moom. ku ko dañ ko war a moytu. dañ ko waaw de am diffamation bi dem moom wax dëgg yàlla internautes yi moom fii maa fi taxaw di leen defaan fii amul kenn ku diffamé kii que ce soit. dañoo ah. dañoo war a moytu di diffamé. waaw. Ah, parce que am na nit yoo xam ne ñoom dañuy naqari deret tout le temps. donc ah. foo jaar ñu. non non en fait sérieusement j'aimerais bien qu'on soit un peu plus sérieux ñu ñu waxtaan ci. waaw mami il faut que ñuy ñuy discours bi ñuy tenir ci plateau yi aussi muy euh, muy nekk information bu ñuy véhiculer mu nekk lu ànd ak responsabilité. Mhm. ñu am ci lu ñu leer. Mhm. souvent mën nga foo mën nga brosser de temps à autre tooñ mbalak mais que mu bañ a nekk quelque chose de sérieux loo xamante ne yow leer na la ni lii amoo ci lu la leer. Mhm. parce que euh, des fois aussi dafay mel ni da ngay jox euh, nit ki arme bu mu la bu mu la rendee benn yoon. mais man man comme enfin je ne comprends pas très bien ci ban angle ngay waxee. Mhm. est-ce que doo ko gën leeral ma gën comprendre. leer na def foofu naa. bilaay yàlla xam na ne comprendre mu bu baax. yàlla baax na c'est c'est par rapport au sport. wala c'est par rapport dans la généralité tu ouais, parles de la non, généralité ou c'est par rapport au sport ou, par exemple tu parles de euh, de cette euh, campagne de enfin c'est c'est même pas une campagne mais genre focus bi ñuy def ci benn nit quand il se produit euh, quelque chose comme comme combat bi xew démb automatiquement les montages qui sont faits ak non non non waxuma waxuma ci ah dama moo tax may laaj dama bëgg nga leeralal ma ah ban montage moo am waaw xam nga ëmb bi mu daanoo démb. Mm. defoon nañ ko ay montage ko ko laay laay gi ma teg nii def nañ fi ay sprite def fi ay gaz. def fi def fi def fi potu potu caakiri dolli ma bi bu vert bi yaa ngi dégg am na beneen sax am na beneen jëmkin jëmkin mant dama ko gëj a gis. boobu itam am nañ ci ñu ci def ma may laaj ndax yooyu ngay wax spécifiquement wala ah daa am pion bu verte waaw boobu ban jeu tamit non parce que échec moom noir et blanc la la man man wax dëgg yàlla man comprendre ma Fatoumata Mbaye Anta tamit nee na wu léegi dafa bëgg pour nga expliquer ñu li ngay wax ni maanaam pour ma comprendre yàlla baax na man dama weex donc déjà man damay sol marron di sol noir mais dama wax donc alors nañu euh, dugg ci waxtaan bi tàmbali kook la minute de la presse euh, bi nga xamante ne simili yi ñu jagleel euh, ëttu taskatu xibaar yi. daal di ci. Ah. xel kii di Mati Sarr ñaam yi nga xam ne boobaak léegi mu ngi ci keso bi. ñu bàyyi xel aussi oustaz Assane Seck ñu leen di apporter suñu soutien ajaratu Mami Sam waaw kon nañ off làmb ji ba ci kanam kon après ñu waxtaane waat ko <laughs> amul problème mën nañu waxtaanee ci oustaz Assane Seck wallaay xam nga xam nga billaahi xam nag aussi kaay ma wax la mhm. parfois c'est difficile de c'est difficile de par rapport ak li nga xamante ne moom mooy xew ci dëkk bi nii actuellement je pense que on est tous d'accord de dire que euh, sport bi naam c'est bien ça apporte un peu de loisir ça diversifie un peu les choses mais bu passé maanaam bu loolu yëpp paase bu seddee daanu daanu daanu kii daan daan yooyu yëpp am du tere ñu dellu si waat ci sunu ay réalité mm-hmm. te réalité bokk na ci nag li ngay waxtaanee nii mm-hmm. tu sais parfois dañuy nekk ci yenn situation yoo xam ne dama naan ndeysaan ñi nga xam ne danoo feebar mm-hmm. naka la ñuy dundee contexte yu mel nii ñi nga xam ne dañ leen a xañ liberté aussi naka la ñuy dundee contexte yu mel nii xam nga quand je dis de contexte mooy. maanaam ñun ñi nga xamante ne yàlla def na ni on est libre ñuy dem ak a dikk di mën a fekkee ay événement sportif di mën a fekkee événement culturel mën a fekkee ay événement religieux di xool xam di waxtaan ak li nga xamante ne moo nekk ci xew-xew doomu aadama est-ce xam nga ne loolu bokk na ci liy dundal wu nit maanaam nga jàpp ne yow ba nga sentir ne yow am nga existence que sa vie am na tuuti sens parce que yaa ngi participer ne serait-ce que joxe sa avis par rapport ak benn mbir mooy ne yow yaa ngi bokk imaginez ñu exclure la lépp et quand exclusion mooy ne xam nga nabu mënoon na neex wax dëgg yàlla dëkk bi neex à tel point que bu événement sportif ñëwee par exemple même les politiques dañ ciy am rôle bi ñu ciy jouer boo xamante ne du ñu immiscé wu carrément dans l'activité sportive en tant que telle mais dañuy nekk dans l'aspect social et puis dans l'aspect euh, sportif du terme on a vu hier ci combat bi euh, le ministre des sports Lat Diop faire une première apparition ci arène nationale bi et puis euh, wax fa ay kàddu yu am solo ne diir bi lu mu gàtt gàtt dinañ jéem a xool comment on va faire pour que image yu Lat Diop football mu dañ mu nekk Lat Diop ministre des sports buy gérer plusieurs disciplines sportives parce qu'il y a plusieurs disciplines sportives dans le sport. Effectivement.